waaw jërëjëf euh, yaakaar naa ni li waral marche bi soxlawul laaj Sénégal yëpp xam nañ ko ndax dañu nekk ci réew moo xam ni euh, ñetti at yi ñu weesu yaakaar naa ne li ñu fi dund Sénégal mosu ko xam ci wàllu jaay doole ci wàllu fitna ci wàllu tëjaate waaye ci wàllu xañ askan wi seen bëgg-bëgg ndax euh, amul dara loo xam ne tey war nañu mën a indi ci lii lu dul ñàkk a wóolu seen bopp ci doxal démocratie ci organiser débat public waaye ci organiser ay élections yu leer yoo xam ne ñëpp dañ ci bokk. askan wi mën a tànnal seen bopp loolu nag ñu bëgg a xañ askan wi nga xam ne li ëpp fii ci Sénégal am na koo xam ne dekkal na yaakaar ci ñoom mi président Ousmane Sonko ñu jàpp ko di ko bund xataal di ko sonal di ko fitnaal mën naa ne 2016 ba léegi ndax ñi ngi démarré 2014 2014 ba 2016 daanaka benn coow amul woon ndaxte xamoon nañ ne xëy na kii li muy wax ni askan wi duñ ko déglu waaye 2016 ba ñu demee ba commencé jaaxle lan lañ gis ñu raje ko malgré tout ñu muñ continuer liggéey bi waaye coow li yëpp mi ngi commencé ci bi ñu génnee ci élection 2019 bi président Ousmane Sonko amee jugee ci 33000 voix. dem ci presque 700000 voix ñu ne nag kii foog ñu dogaale ko léegi nii ca la coow yi commencé ca la tooñ yi commencé ca la tuuma yi commencé ca la mbirum prison yeeg mbirum euh, attaque force de l'ordre yeeg lépp ñu gis ko mu nekk koo xamante ne nii ba ñu commencé ba léegi liñ ko teg jàpp naa ne teguñ ko benn om politique Sénégal tey gis ngeen ne mu ngi nekk fële ñi naan mu ngi ci diggante dund ak de ak yu ni mel dara waralu ko lu dul ah, jàpp ne kii bu ñu wuutoo ci réew mi du baax si ñun loolu taxu ñoo jóg ñun Sénégal lañ bëgg a defar bu ñu xañ sénégalais yi ñu tànn ki ñu yaakaar ne moo gën ci moom bu ñu amee programme am nañ seen candidat am nañ seen bilan nañu bàyyi ñëpp bokk ku nekk déroulé sa programme ñu organiser ay débat télévisé askan yu mën a tànn donc ñu ngi wax Macky Sall encore une mu bañ a déglu ñi nga xam ne dañ koy dugal te ñooy njëkk a transhumé bàyyi ko ndax am na ñu bëri ñoom ñoo xam ne commencé nañ di di di ngarale loolu nag li mu firndeel mooy moom ayam jeex na daa war dem bàyyi ñu réew mu ne ñum waaye li ci ëpp solo mooy am nañ li ma junni nit ñoo xam ne ñi ci kaso bi ñi famille boo dem daanaka ay soutien de euh, soutien de famille rek ñoo nekk ci kaso yi ay doom yoo xam ne ay fils unique ñoo xam ne mosuñ leen xamee problème dañu yor seen liggéey waaye dañu gëm ci benn projet di ci góorlu di ci xeex ñu jàpp leen te ci kaso bi ci jaay doole ñii nekk di jël gaal yi di dem dara waralu ko lu dul ñàkk yaakaar ak ñàkk jàmm ci seen réew. mu mel ni dafa nekk loo xam ne dafa arrangé askan bi dafa arrangé plutôt ñoom xëy na dañ naan ñiy dem ay Sonko la naroon votel wala ñu ni mel mais li am solo mooy damay ñaan askan wi rawatina jeunesse bi bu ñu dem nañu toog ñoom dañuy xeex ci juróomi weer ñun dañuy xeex ci juróom fukki at comme ni ko président Ousmane Sonko waxee donc nañu xaar 2024 soreetul ñu jël suñu réew defar ko ba ñeey tubaab yee ñuy daw di wutali ñoom ñooy mujjee ñëw di immigré fii jërë ngeen jëf.